أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته noo ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala di jël ñaari aaya ci suratu nisa aaya 136 ak aaya 137 bokki jullit yi ñaari aaya yi sunu borom mu ngi ci jàngal ñetti mbir bu ci njëkk mooy wujubul istimrar ala al iman wa taqwiyatihi xatta al mawt alayhi sunu borom subhanahu wa taala mu ngi nuy jàngal ci aaya yi nekk sunu kanam muy ñaari aaya mooy danoo war a continuer dafa war ci ñun ñu war a continuer ñu am continuité goo xam ne day nekk alal iman ci ngëm yàlla tabaraka wa taala ngëm yàlla du gëmantu ay bis wala ay guddi wala ay bëccëg comme tey ni mu xewee ci jamono nga gis kenn koo xamante ne bala muy gëm yàlla rek am événement bu am ci événement boobu la ñuy xamee ne ànd ki ci jullit la kat la ilaha illa allah ne xaw moon sax ndax ki jullit la loolu musiba naarullaay la ab jullit li yàlla waxoon yonent bi rek waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin jaamu yàlla ba dee fekk la ci loolu wujub la dafa war al istimrar alal iman mooy nga continuer ci ngëm yàlla ba pare doo yem rek ci continuer ci waaye nga lu koy dëgëral aussi lu koy suuxat ci yow lu koy tax mu continuer lu tax mu dëgër loolu chaque jour da nga ko war a ut kañ nga war a kañ nga war a fekkente ne war nañ koo wax wala war naa am kañ nga war a yaafus mooy bu dee ñëwee indal mawt te kenn mun naa nekk te loolu mun na nekk ndax loo nekk rek ci loolu ngay dee loo nekk ci loolu ngay dee moo tax booy nekk yàlla na fekk nga nekk ci lu baax léeg-léeg nga gis ci àddina ku nekk ci stade di daw ba jaag rek daal di daanu balaa sapeur yi yegsi wala médecin yi yegsi mu daal di dee ci gazon bi parce que ci loolu la nekkoon moo tax mu dee ci léeg gis ci podium yi kuy tëb di cëppi cëppi ba jàgg rek daal di wadd balaa secouriste yi ñëw fekk dee na parce que ci loolu la nekkoon waaye léeg nga gis tamit ci àddina bi ku sujjóot daal di dee gis naa ay vidéo yu bëri ak ay poster ay nit ñoo xam ne ndeysaan dañoo julli ba pare jël kaamil toog jàng ba sonn tëdd teg seen kaamil yi seen dënn di noppalu dee du jeex waaye noonu ngay gisee nit ñi di dee ci lu baax noonu ngay gisee ay nit di dee ci lu bon waaye la moo tax ñee dee ci lu baax ñee dee ci lu bon lu tax mooy ku nekk rek li nga nekk ci ngay dee loolu tax nit war a nekk ci lu baax soo déggee wala tamutunna illa wa antum muslimun bu leen dee lu dul ay jullit ngeen mooy fexeel nga dee ci lu baax fexeel nga nekk ci diine waaw xam ngeen ne ku dee baar ku dee ci baar ba ak ku dee ci jàkka ja ñaar ñooñu du ñu benn de suñ doon laaj fii benn question ñu ne ban ngeen ci bëgg bu ngeen di wax ah jee ci jàkk moom nga bëgg yow man mii tamit de moom laa bëgg xaw ma ñii nag moom ban lañ bëgg gars yi ban ngeen bëgg gis nga xoola beneen bi kenn tudd ko kenn bëggu ko lu tax kenn bëggu ko parce que baaxul mais xoolal da nga gis ay nit di fa dem ndeysaan ba dee fekk leen te ngëm yàlla nit daf cee war a continuer ba dee fekk ko ci ñaareel bi mooy bayaanu arkaanul iman ponki ngëm dafa war a leer ci ñun ponki ngëm gis nga bëri na tey kuy wax ne man gëm naa yàlla soo ko doon laaj ci ngëm da ngay gis day daanu ngëm ay ponk la ñaata la ah ponki ngëm ñaata la mais dama dégg ay baat yu wuute de dégg naa ñaar dégg naa juróom dégg naa juróom benn ponki ngëm ñaata la juróom benn la juróom benn yëpp globalement moom la jullit bi di gëm mu doog a am imaan juróom benn yëpp ngay boole nga doog a tudd ku gëm yàlla juróom benn yi boo ci bàyyee benn gëmutoo yàlla boo ci bàyyee benn juróom benn yi boo jëlee benn bi nga bàyyi juróom yi gëmutoo yàlla génn nga ci ñi gëm yàlla génn nga ci hmm? waa gëm mooy al iman gëm mooy al iman islam mooy jébbulu ihsaan mooy rafetal juróom benn ngëm yi ci xol lay nekk soo ko boolee nga doog a tudd ku gëm soo duggee ci islam li nga gëm sa cër yi ñoo koy jëfe moom nga dégg ñu ne arkaanul islam ndax ngëm la ak jëf ak rafetal li ngay jëf loolu mooy iman islam ihsan ngëm gëm li nga jëf gëm jëfe li nga gëm mooy islam cër yi ñoo koy liggéeyal yàlla loolu ngay jëf tamit mu rafet loolu mooy ihsaan moo tax ñu tëgg tëggale ko maraati bu diin salaasa ñu ne la marta buy diine ñett la iman islam ihsaan buñ ñëwee benn bu ci nekk moom tamit moo am ay kenoom arkaanul iman ñu ne la sitta arkaanu islam ñu ne la xamsa ihsaan ñu ne la benn la an taabudullaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak lii mooy diine juróom benn yooyu moom ngay gëm nekk jullit nga nekk ku gëm yàlla soo ci bàyyee benn weddi nga juróom benn yooyu lan ak lan la al imaanu billah ngëm yàlla moo ci jiitu ngëm yàlla moo ci jiitu yàlla naka lañ koy gëmee àddina bi ndax ñi fi nekk ñëpp ñoo gëmandoo yàlla est-ce que ñi fi nekk ñëpp gëm nañu yàlla bul wax déedéet de waxal waaw ñu nekk ci àdduna bi ñëpp gëm nañ yàlla de waaye nin ko gëmee moo bokkul am ñoo xam dañoo gëm ne yàlla ndox la d'accord ngeen am ñoo xam dañoo gëm ne yàlla garab la am ñu gëm ne yàlla nag la am ñu gëm ne yàlla mooy jant bi ñi gëm ne yàllaay weer wi am ñoo xam ne sax dañoo gis nit ki toog sama wet kaalaw sol veer yi yàlla la gis nga kon ni ñu gëmee yàlla moo bokkul yàlla moomu subhaanahu wa taala nag pour nga nekk jullit nga gëm ko moom dana na man kenn cundung laa dooma boole kenn pour yàlla rek nga gëm ko moom tamit dafa laaj ay njàng yàlla kese pour ñu jàngal la ko pour nga gëm yàlla rek nga bañ koo bokkaale moom rek tamit beneen leneen mbir la soo paree ci yàlla nga ñëw ci malaaka yi nit ñi gëm nañ malaaka yi wala gëmuñu ko aha kay niñ ko gëmee moo bokk ndax ñenn ñi dañoo gëm ne malaaka yi ay doomu yàlla lañ ah wala ñenn ñi gëm ne malaaka yi ay jaamu yàlla lañ comme du benn nga ñëw ci malaaka yi tamit ñu jàngal la ñoom ñooy ñan lan mooy seen liggéey ñaata lañ ñenn ñu nekk ci ñoom lan la ñuy liggéey lan la leen yàlla binde yan jëmm lan yor ndax dañuy lekk ndax dañuy naan ndax dañuy sëy yooyu yëpp ñu jàngal la ko soo paree ci malaaka yi nga ñëw ci yonent yi ñu jàngale ñoom tamit ñooy ñan ndax ay mbindeef lañ lan moo tax yàlla yónni leen nga ñëw soo paree ci malaaka yi nga ñëw ci téere yi ñaata téere la téere bu nekk ci kan lañ ko wàcc téere yi lan lañ fi utsi lu tax ñu wàcc téere yi soo paree ci téere yi nga ñëw ci yowmal xiyaam lan mooy yowmal xiyaam lan moo tax ñu tuddee ko yowmal xiyaam bis boobu lan moo fay xew soo paree ci yowmal xiyaam nga ñëw ci ndogal dogal dogal dogal dogal dogal nga ñëw ci lan mooy dogal xayrihi wa sharrihi bi neex bi naqari soo boolee juróom benn yi nga doog a am imaan mais bu ci nekk rek ci yi ma wax boroom xam-xam yi bind nañ ci ay ay ay ay toni toni toni toni toni téere waxuma benn téere de ay toni téere pour leeral nan la ñuy gëmee yàlla nan la ñuy gëmee malaaka yi nan la ñuy gëmee yonent yi nan la ñuy gëmee téere yi nan la ñuy gëmee yowmal xiyaam nan la ñuy gëmee dogal ku ci nekk ay téere la kon du lu ndaw
comme nag ñun duñ ko jàng loolu tax dañuy am problème ci ngëm gi moo tax ngëm gi lépp lay jaxasool
waaw ay gëm yàlla gëm nen yi gëm weñ yi gëm guddi gëm ndox gëm ay xarfa fuuba ay béjjén gëm ay petaaw lu ne nga boole ko ah yàlla dëgg-dëgg nañu gëm yàlla waaye nag ah petaaw yi ci la bokk de gis nga ndox mi ci la bokk de reen yi ci la bokk de gàllaaj gi ci la bokk de ah parce que ngëm yàlla gi moo leerul ci yow moo tax loolu lépp nga boole ko ci noonu ngay gëmee yonent yi aussi jaxase ko noonu ngay gëmee téere yi jaxase leen noonu ngay gëmee malaaka yi jaxase ko c'est parce que jàngoo ko xamoo loolu mooy lan kon boroom xam-xam yi nee nañu benn bu ci nekk dafa jar jàng wujub bayaan dañoo war a leeral arkaanul imaan lan mooy ngëm kenoom yi lan la waaye suñ la koy leeral du leen rek ñu ne la mooy imaanu billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil axir comme ni mu ñëwee ci hadis benn moo ci tóoloon te yàlla wax nañu ko ci suratul qamar mu ne inna kullu shay'in xalaqnaahu bi qadar foofu mooy al imaanu bil qadari ñetteel mooy dinañu jàng tey al murtad al murtad mooy ku murtad lan mooy atteem ci lislaam al murtaddu ku murtad lan mooy murtad xam nga murtad xamoo ko murtad mooy lan xamoo ko xam nga murtad murtad mooy lan mooy ku génn ci diine ji kon ñetti tomb yi ci loolu la ñu bëgg a def darsu tey ci ñaari aaya yi mais mbokk yi balaa ñuy jël ñaari aaya yi bëgg nañu suñu kéemtalaayal kàttan leeral tomb bu mujj bii ñu wax léegi léegi te moom mooy al al murtad mooy ku génn ci lislaam allahu akbar ku génn ci lislaam dafa bëri tey ay nit ay jullit yu génn ci lislaam ba pare jàppe seen bopp ay jullit su ñuy leeral loolu laaj la ñuy njëkk a indi ñu ne wa ma huwa hukmul murtad lan mooy àtte ku murtad wala ñu ne kan mooy ku murtad ak lan mooy murtad murtad mooy génn ci lislaam naka la ko nit di defee ndax nit day ñëw rek ne man génn naa ci lislaam man de lislaam neexoon na ma génn naa ci déedéet loolu mur ci murtad la bokk waaye suñuy xaaj murtad danañ ko xaaj ba mu dem juróomi xaaj yenn saa yi nit ñi génn ci lislaam te duñ ko yëg bu ci njëkk mooy arriddatu hiya al kufru baada al islaam moom mooy bu njëkk bu leer mooy ki nekkoon ci lislaam xëy daat ne génn naa ci ba set diine ji daal dafay sonal nit ñi rek gëmatuma ci tus maa doon julli julleetuma maa doon woor wooratuma maa doon joxe azaka defatuma ko maa bëggoon aji demuma beddinaa ko kooku génn ci lislaam ñaareel mooy riddatul iqtiqaad am na weddi boo xam ne nit daf koy def ci pas-pasam ci pas-pas bi mu gëm ci la génnee ci lislaam allahu akbar ci ngëm gi nga gëm yàlla nga am loo ci boole te waru cee bokk loolu daal lay génne ci lislaam loolu la ñuy wax riddatul itiqaad weddi yàlla ci sa ngëm ci sa pas-pas loolu nu muy newee ka shirk billah comme nga bokkaale yàlla boo bokkaale yàlla génn nga ci lislaam boo ne yàlla ak wala nga waat ci nit nga ni barke diw génn nga ci lislaam loolu hadis la wala du hadis ah man xalafa bi gayri llahi faqad ashraka wa kafara jazakallah xayran dégg nga lu mu wax mu ne moom dafa dégg ñu ne soo waatee ci barke nit barke ci barke bi la wax waatoo ci nit ki waaye ci barke nit ki nga waat waaye man li ma jaaxal mooy suñ waxee Muhammad lan ngeen di wax kon doyalul kon moom sax doyalul barke bañ ciy waat sallallahu alayhi wa sallam mooy lan mooy yàlla na ko yàlla dolli kon doyalul kon na ko doy waate ci keneen fekkee moom barke bi mu am doyul ba dañ naan yàlla na ko yàlla dolli ku wax loolu ngay wax te moom yaakaar nañ ne moom mu ëpp ñëpp barke wala ah ah suñ waxee ñu ne yàlla na ko yàlla dolli kon moom doyalul ndax kon keneen war naa doy bay maye kon kenn du waat ci nit ka shirk aw jahduhu wala nga weddi yàlla aw nafyu sifa saabit min sifaat aw isbaat alwaladu lillah soo dàqee benn melokaan ci melokaanu yàlla yi ñu ne la yàlla nii la mel nga ni melul noonu yàlla dafa am loxo nga ni amul loxo yàlla day dégg nga ni déedéet yàlla day gis nga ni déedéet ah génn nga ci islaam moo tax yàlla ay melokaanam bul ko dàq melokaan yi melal boppam wala yonent bi melal ko yàlla ah wala nga yow nga dem saxalal yàlla loo xam ne amu ko nga ni yàlla dafa am doom wala nga ni diw yàlla la nga dendale yàlla ak kook génn nga ci lislaam murtad nga yemul ci murtad fa huwa murtadun kaafir kooku dafa génn ci lislaam bare yéeféer la mbiri du lu ndaw de ndax suñu diine ji foog ñu jàngul buñ ko jàngul topp xumb xumb yi mbooloo yi di yuuxu rek ba nga dee dajeeg yàlla du baax ñaareel mbokk yi riddatun bil aqwaal sànq dañ ne woon murtad bi ki ko def lan moo tax mu murtad ci pas-pas la murtade kii murtadam lan la daf ko wax waaw waaw bil aqwaal ka sabbillah dafa saaga yàlla xam nga boo nee ci boo nee dëkk bi am na ñuy saaga yàlla fii nii Sénégal am na ñu koy weddi kan mooy saaga yàlla bu ngeen demee Europe bala ñu am leen neex saaga yàlla surtout Italie da ngay gis nit koo xam ne bala muy am lu ko neex saaga yàlla waaw même fii sax commencé nañu ah waaw boo dee yàlla tawal doj wala du ngeen koy dégg ak a bëri yàlla mooy kan. léegi naa fi benn kilifa diine mu ne man sax bu ma yàlla nii eh ma ni ko eh ndeysaan yaa yàlla du moroom de yàlla wallaay yàlla du moroom yàlla kenn waru ko adresse sax yenn parole yi dafa jaaduwut loolu dafa araam saaga yàlla saaga yonent bi loolu moom yéen a ngi koy dégg am nañ fi benn rajo loolu chaque jour mu ngi saaga yonent bi te li ci metti mooy kenn du ci wax dara waaye tey ku saaga woon tey benn sëriñ léegi gaay taal sa kër te rajo bis mu ne mu ngi saaga yonent bi ak saxaaba yi mu ngi fii di saaga soxna yonent bi di leen tuumaal mu ngi fii ngeen di dégg guddeeg bëccëg soo waxee ñu ne la non ñooñu loolu lañ gëm ñun tamit loolu lañ gëm nañ leen bàyyi ñoom ak luñ gëm ah sunu diine ndax am nañ ku ci gën a rëy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ridda la bil aqwaal beneen ridda bi mooy riddatun bi tarki mooy nga murtat ci bàyyi li nga war a def nga bàyyi ko waaw riddatun bil aqwaal am na waaye riddatun bil afaal murtat ci jëf ay jëf jëf yi moo tax nga murtat ka ilqaa il mushaf fi mahallin qazara jël kaamil kaamilu yàlla bi maa ngi denc benn kaamil boo xam ne bu ma leen ko indaloon fii yéen ñëpp di ngeen xam fekkee ngëm yàlla mu ngi ci yéen kaamil boobu dañ ko sulli dañ ko sulli indil ma ko moo ne nit ñi mbon yi ñuy def ñenn ñi day jël kaamil di ko dugal ci ay toilettes waaw ñenn ñi di def ci kaamil loo xam ne loolu musiba la ku ko def rek génn nga ci lislaam waaw allahu akbar beneen bi mooy ridda bi tark ka tarki jamii shaairi diin kii dafa murtaan ndax dafa bàyyi dara ci diina yàlla ji dafa bàyyi julli dañ ko ne julli mu ne julliwuma koor dafa jot mu ne wooruma waaw jullil mu ne non man du ma julli lu tax parce que man ki ma gëm nee na kenn du julli wooral mu ne man du ma woor lu tax parce que ñun ki ñu gëm nee na kenn du woor aji maaka mu ne jarta dem jarta dem ku bàyyi yi rek génn nga ci lislaam tamaman yii nii dalil la ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne ku bàyyi lii isar tadda muslim wa kaana mustawfiyan li surutu ridda ñu càmbar mbiram guddeeg bëccëg ñu xool ko boroom xam-xam yi gis na kii dafa murtad bi haysu kaana aqilan baaligan muxtaaran ñu xool ko ñu gis ne mesure na ku am xel la doful dara jàpp ko kenn forcé wu ko tiitaluñ ko moo tànn bàyyi lislaam dañ koy rey dañ koy tuubloo ñetti fan su tuubee ñu bàyyi ko bu tuubul dañ koy rey kan moo koy rey imaam moo koy rey ki jiite jullit ñi mooy joxe ndigal daan ne rey leen ko ñu rey ko yonente bi alayhi salaatu salaam moo dëgëral loolu ci yàq ne laa yaxillu damm imri muslim bi shahaadat an laa ilaha illa allah yashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulillah illa bi ihda salaasa an nafsu bin nafs wa sayibu zani wa taariku li diinihi al mufaariqu lil jamaa yonent bi nee na daganul cib jullit bu seede ne yàlla kenn la man mii yonent bi yàllaa ma yónni lu dul ci ñetti mbir ñuy tuur deretam lu dul ci ñetti mbir su reyee nit dañ ko war rey su sangewoo njaaloo dañ ko war rey su bàyyee diineem génn ci mbooloo jullit ñi dañ ko war rey kon lii mooy àtte murtad ak ci lu gaaw lu gàtt pour ñu dugg ci aaye bi nga xam ne moo nekk sunu kanam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله واليوم الآخر فقد دل دلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا mbokk yi sunu borom nee na yaa ayyuha allazina amanu waxoon nañ yaa ayyuha allazina amanu lu muy tekki kin doon jàngal da doon wax yaa ayyuha allazina amanu ju gis yaa ayyuha allazina ju gis amanu tegu ci mu ne ñooñu seeni borom texe nañu mu ne yaa ayyuha allazina ju gis kafaru tegu ci seeni borom alku nañu yàlla mooy woo ñi gëm bis bu nekk di leen woowee baatu ngëm ee yéen ñi ma gëm ndeysaan kon buñ ne ee yéen ñi gëm yàlla am na ñu ñu dàq de ñan ñoo bokkul ah fu gëmul yàlla bokkatoo yàlla génne na la ci kon lii nun noo ko moom ñun la yàlla woo lan la nuy doyee mu ne aminu billahi ngallawaay gëm leen yàlla doy na rek kay mu ne yaa lazina amanu ba pare mu ne aminu billah ee yéen ñi gëm loolu dong doyoon na waaye da ko feddali mu ne aminu billahi gëm leen yàlla loolu lu muy tekki mooy dolleeku leen gëm ngeen de waaye na dëgër gëm ngeen de jàpp ngeen waaye gën leen a jàpp aminu billah da ngeen gëm yàlla na ngeen jàng ba ngeen xam ne yàlla moomu mooy kenn ngeen gëm ko ban ko dendale lenn ak kenn li tax tey nit ñi di bokkaale mooy ñàkk a xam yàlla waaw loolu kese la parce que xamuñu ku xamul lu la neex nga def xale mooy fekk gaynde nekk seen buntu kër muy muy xëcc génn gi wala waaye papaam mi xam gaynde bu yeewoo ne nii ubbi buntu kër gi ne nii gis gaynde la mu leer ko ne moom la nu muy defaat buntu kër gi ah da koy tëj ndax da koy tëj rek dem toog dina jël matukaayam de cee gaynde googu balaa muy dugg ci biir waaye xale bi nag bu ubbee buntu kër gi moom du yem ci ubbi buntu kër gi waaye day ñëw war ko naan ko Ali parce que xamul ndeysaan waaw xamul xamul lii lan la waaye ñun tamit xamuñu yàlla loolu moo tax lu nu yëkkati lu nu neex ñu jaxase kook yàlla wala yàlla mu ne nu aminu billah ngallawaay gëm leen yàlla bu leen ci yem de wa rasulihi gëm leen yonentam bi si ngeen ana keneen fii kuñ fi dugal damay laajte de ana keneen kun fi dugal kun fi war a gëm wala lii du alxuraan ah man de yàlla laa fi gis aminu billahi kuñ ci teg amul keneen kon lii mooy ngëm amoo droit gëm keneen boo ko waxee Sénégal nag ñu ne gis ngeen kii tafsirul rek yem ci kii day tooñ naka laa tooñ yàlla moo ne aminu billahi wa rasuli tegu ci keneen wala wala man sama téere ak seen téere dafa am wute dafa am foofu kuñ ci dugal wax leen ma ko lu mu ci teg mooy wal kitaabi allazi nazzala ala rasulihi na ngeen gëm téere bi nga xam ne dañ koo wàcce ci yonent bi mooy alquran kon ñett yi lañ war a gëm yàlla yonent bi alquran amul keneen wala am na keneen wala am na beneen téere wala am na leneen jeex na kon li tax du ñu gëm yàlla li tax du ñu gëm yonent bi kese li tax du ñu gëm téere bi yàlla wàcc ñun mooy ñàkk a jàng lii Sénégal boo gisee ñu jàng alxuraan rek dafa am ku dee ku dee rek ñu ne bismillah kaay leen ñu gaa yi ñëw ya ayuha alladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladi anzala min qablu wa man yakfur bil noonu lañ ko jaabare mu daal di jeex léegi ku dee ki lu mu ci am kii gëmuloon yàlla kese gëmuloon yonent bi kese gëmuloon alxuraan kese léegi yéen a ngi koy jàngal gis nga gis nga danger bi alxuraan def leen la ak bu leen def kon nan góorgóorlu yàlla subhanahu wa taala lim nuy wax ñu nekk ci gëm leen yàlla gëm leen yonentam bi wal kitaab ak téere bi ban téere la alxuraan allazi gis nga yamu ci de dafay leeral ban téere la téere bi nga xam ne anzala moom la ñu wàcce ah nazzala moom la ñu wàcce ala rasulihi ci yonentam bi muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wal kitaabi allazi anzala min qablu ak téere yi nga xam ne téere bi nga xam ne moom la ñu wàcce woon avant alquran bi ñëw bu la neexee muy tawraat bu la neexee muy injil ndax balaa loxo di ci dugg loxo bu ke soppi ci yàlla la bàyyee koo woon wala ahmed didaat rahimahullah day wax bu ñu la laajee ndax bible waxu yàlla la mu ne bul weddi waxal waxu yàlla la buñ la nee bible bii nag waxal dugal nañ ci leneen lu dul waxu yàlla kon dañ ko jaxase waxu yàlla ngi ci ak yeneen yi wax mu ngi ci yi dul waxu yàlla yàlla nee na nañ gëm yàlla gëm yonentam gëm téere bi mu yàlla wàcce ci yonentam muhammad waaye ñu gëm téere yi nga xam ne yàlla wàcce woon na ko min qablu lu jiitu alquran di ñëw yàlla mu ne wa man yakfur billahi cey ku weddi yàlla wa malaikatihi ku weddi malaakaam yi wa kutubihi nga weddi téere yàlla yi wa rusulihi nga weddi yonent yi wal yawmil axir nga weddi alaxira yàlla nee na ku weddi lii ku def lii faqat ca dëgg-dëgg dalla sànku na réer na dalaalan réer goo xam ne baidan dafa sori dëgg waaw gaa yi ku weddi yàlla sori nga dëgg wala sori wa dëgg ku weddi malaaka yi nga weddi téere yàlla yi nga weddi yonenti yàlla yi nga weddi alaxira dëgg-dëgg mënatoo mënatoo jege réer bi nga réer nekkatul réer bu ndaw ndax kenn mënatul fexe nga baax te weddi yi du man dama weddi benn malaaka rek soo weddee benn malaaka sax weddi nga ñëpp yéefee dañ doon wax ne ñun jibril mii kan mooy indi alxuraan ñu ne jibril ñu ne ñun jibril neexuñu dara ndax li muy indi neexuñu malaaka yit nga ñu weddi soo weddee benn téere ci téere yi yàlla wàcce téere yëpp nga nga weddi soo weddee benn yonent yonent yëpp nga weddi ndax ñoom ñëpp ñoo bokk li nu indi ñoo bokk benn programme amul man ñin kii moo nu neex kii neexunu laa nu farriqu bayna ahadin min rusuli du nu weddi kenn ñun ñëpp la ñuy boole amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun gis nga kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi mu doog la wax ne laa nu fariqu bayna ahadin min rusuli ñëpp la ñuy gëm du ñu weddi du ñu tàqale ñun yeneen yëpp lañ gëm soo ñëwee ci kër jullit yi nga fekk fa Ibrahim nga fekk fa Muusa nga fekk fa Isa nga fekk fa Maryam nga fekk fa Muhammad waaye demal ci kër ñeneen ñi loo ko fa fekk c'est parce que ñoom dañoo tàqale ñun nag li nu alxuraan wax loolu lan war a def mooy gëm yàlla gëm malaaka yi sànq li ma leen doon wax bu ci nekk rek lii al imaanu billah mun nañ ci def dars mu jeex ñu def al imaanu bil malaayika te duñ jeexal mu jeex ñu def al imaanu bil kutub mu jeex ñu def al imaanu bil rusul mu jeex ñu def al imaanu bil yawmil axir mu dees ñu def al imaanu bil qadar boobu moo ñëwul ci aaya bii benn ngëm bi des moo ñëwul ci aaya bii mu ngi suuratu mu ngi suuratu suuratul qamar foofu la benn ba nekk léegi nag pour nga am ngëm mooy foog yi nga jàng ko benn bu ne nga jàng ay kenoom pour nga xam gëm nga yàlla wala gëmoo yàlla borom bi nee na li am importance ci lii ñu bëgg a wax mooy képp ku weddi waman yakfur képp ku weddi fan ngay mujje faqad dalla dalalan baidan réer nga sànku nga sori goo xam ne kenn dootu la mën a gindi ndax da ngaa sori dëgg yàlla gi baidan la yàlla wax gis nga yàlla yematul ci loolu ba tey mu ngi koy feddali mu ne inna allazina amanu nit ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla dañoo gëm ibrahim summa kafaru ñu weddi muusa summa amanu ñu gëm isa summa kafaru ñu weddi muhammad yemuñ ci de wala nga ni inna allazina ñi nga xam ne amanu dañoo gëm summa kafaru ñu weddi summa amanu ñu gëmaat summa kafaru ñu weddiwaat summa zdaadu kufran kañ la ñu gën a weddi nag bi Muhammad ñëwee ñu gën a dolleeku ci weddi yàlla yàlla nee na lam yakuni laa li yaxfira lahum ñii du kenn mun tax ba ma baal leen lam yakuni laa li yaxfira yàlla nekkul ku leen di baal kon affaire yi ndawul de ku yàlla ne kii duma ko baal lan ngeen xalaat ci moom waaye bu leen xeeb bu leen réer li yàlla wax parce que seen ngeen waa ji lim def seen ngeen ñii luñ def dañoo gëm yàlla ba mu neex leen ñu sànni ko fële ne gëmatuñ inna allazina la wax ismu mawsul inna allazina gaa ñi nga xam ne amanu danoo gëm yàlla ba mu neex leen waaw suma kafaru ñu weddi li ma waa ji waxoon fii kenn ma saas man bu koor gi ñëwee rek damay am iman koor gi jeexee rek vraiment da ngay waa rek waa waaw saas da laa def ah nu ma ci mën weer koor ñëwee nga am ngëm mu ne gis nga weer koor ñëwee xam nga da ngeen di tafsir chaque jour ma ne waaw mu ne iman plein laay am ma ne ko léegi nag mu ne mel mi ba bu koor gi jeexee rek sa saas mu ne waa léegi nag ah léegi kay yow yaay góorgóorlu soo fexee ba nga am ngëm ngëm dañ koy suuxat ngëm dañ koy roose koy roose pour mu sax wax naa leen sànq bi ñuy commencé nit dafa war a sax ci ngëm waaye nga fexe ngëm googu boo ci saxee nga fexe lu koy dundal ba ci ri oto day yéeg day ah day wàcc noonu la ngëm def ngëm day yéeg day wàcc lan mooy yokku ngëm mooy yu baax yi ngay def fu baax yi ngay dem yu baax yi ngay def yu baax yi ngay dégg loolu mooy yokk sa ngëm waaye bu fekkee yow am na place yoo xamante ne boo fay dem doo am ngëm yàlla genre stade yi nga xam ne 24 heures sur 24 yaa ngi stade di yuuxu rek di supporter waxtu yi di la romb nga jaxasoog nit ñi bu jigéen ñi seen col gu bon gi fooy amee ngëm yaa ngi ci soirée yi yaa ngi ci nangam fooy amee ngëm waaw déglu musique di kenn xamul di seetaan ay film très bien fooy jële ngëm sa ngëm day dem di dem di dem di dem ba boo déggee allahu akbar da ngay yéema na di nga gën nga yéema di di ko bloqué di ko bañ pour pour allahu akbar bi egg ci sa nopp yi même booy tëddee guddi nga dégg ñu naan astalaatu dañ koy jéema na di jéema wëlbateeku di jéema sangu sanguwaat pour di jéema après seytaane naa la garaawul garaawul après xam nga rek boo jógee nga julli quoi yow gëm nga yàlla moom paa yi dañuy nekk fi di laxal nit ñi rek ñoom sax waaye gis nga paa bi sax tey daal du la bàyyi de gis nga paa bi sax bi mu tollee ne yow daawul julli toog ba màgget rek ne fi la rek nga commencé am confiance nag fi nga tëdd nag gën a sangu nag. Iblis noonu la lay def Iblis du bàyyi kenn mu mu def lu yàlla santaane. oo tax al imam Xasanul Banna ndeysaan day wax ne ci al wasaaya al asara yi mu bind frère musulman yi. day wax ne bokk na ci ndénkaane yooyu mu bindal frère musulman yi fukki ndénkaane la day wax ne saa yoo déggee nodd jógal julli saa yoo déggee nodd bàyyi li ngay def julli bu fi nekk naan ba ma pare ba kii balaa fi nga déggee waa ji ne allahu akbar allahu akbar bu mu wax ashhadu an laa ilaaha te jógoo gis nga boo reppee ba mu nodd ba pare te jógoo pare nga dootoo jullee ci loolu yàlla musal la daf leen di wax ne ñoom yéen ixwaanul muslimin saa yu ngeen déggee nodd bàyyi li ngeen def julli juleen loolu dafa bokk ci alwasaaya al ashara mbokk yi inna allazina gaa ñi nga xam ne amanu danoo gëm yàlla ba mu neex leen summa kafaru ñu weddi dañoo gëm ibrahim Moussa ñëw gëmuñ ñoo bañ Isa ñëw ñu gëm Muhammad ñëw ñu weddi yamuñ ci ñu leen di waar summa zdaadu kufran ñu gën a weddi yàlla mu ne bu leen fi nekk di ma ñaan njekk lam yakuni laa li yaxfira lahum yàlla nekkul ku leen di baal benn wala li yahdiyahum sabila yàlla nee na du ma leen jubal du ma leen jubal te du ma leen baal yàlla nag bu waxee lii kenn ku nekk ci ñun moo war a bàyyi xel ci loolu waaw dañoo weddi yàlla subhanahu wa taala mu ne te dammana al aaya muqarriran li hukmi bil xusraan aaya bi dafa ñëw di saxal ñi perte dëgg-dëgg mooy ñii nga xam ne dañoo weddi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam weddi téeréem weddi li mu indi nee na lam yakunillaa li yaxfira lahum lam yakun fi sunnatillahi an yaxfira lahum nekkul ci yoon wi yàlla tëral texte bu ñu fii liir ba yàlla baal ñii yàlla nee na du leen jubal kenn du fexe ba ñu jaar ci yoon wuy muccule déedéet kon nanu moytandiku jaar ci yoonu yahud yi nañu moytandiku jaar ci yoonu nasaraan yi ñu xam ne képp ku weddi yàlla ku weddi yonentam ku weddi téere bi yàlla wàcce ci moom muy alquran kenn mënta fexe ba nga jub waaye kenn mënta fexe ba yàlla baal la maanaam li ay aver- avertissement la de lii nii léegi nag mbokk yi aaya bi bu ñu bàyyee ba nit dee ñu ñëw di ko liir fan ngeen jàng ci aaya bi aaya day dugal nit aljanna lii yàlla wax ni lii ñu wax ni fan ngeen ci gis yërmande bu yàlla war a wa- yërëm waa ji alxuraan ay luwaa la ay atte la atte yi ñun ñii di dund lañ ko war a wax mu dugg ci suñu bopp moo tax yàlla wax ci suratu yaasin li yunzira man kaana hayyan wala li tunzira man kaana hayyan nañ ci waar waa ji balaa muy dee waaw pour ñun ñii la pour ñun ñii di dund la ñu xam ne lii santaane yàlla la lii atte yàlla la lii dafa war képp ku weddi yàlla doo texe ku weddi yonent yàlla muhammad doo texe ku weddi téere bi yàlla wàcce woon ci muhammad te mooy alquran amoo beneen yoon amoo keneen koy àndal amoo lu ñu lay jàngal amoo fu ñu lay suuli ba nga dugg àjjana jamais parce que yàlla moo ko wax te yàlla lu mu wax dëgg la laa tabdila kalimati walan tajid li sunnatillahi tabdila yoonu yàlla kenn du ko changé yàlla wax na ko pare jeex na maa yu baddalul qawlu ladayya samay wax kenn du ko changé kon mbokk yi li mooy dar sa tey ñoo ngi ñaan buur yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu juum tey li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu boo amee ay question ñu gaaw